ñi nga xam ne dañuy xeex lépp loo xam ni mun na néewal nit ki doole ñi nga xam ne dañuy yàqal nit ñi seen bérébu liggéeyukaay ah bu ngeen xoolee kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii nga xam ni chaque jour fi ngeen leen di gis mooy fépp foo xam dañu fay def nit ki loo xam ne méngoowul ak yoon donc ñu ngi leen di sant bu baax caat ñu ngi leen sant bu baax Guy Marius Sagna ñu ngi sant universitaires yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi sant ñëpp ci groupe des médias ñu ngi sant képp koo xam ne teew si nga ngir bokk ak ñun ci xeex bi nga xam ne ci lañu ñu nekk ñu ngi sant bu baax taskatu xibaar yi alors léegi nag ñi nga xam ñoom ñoo ñoo ñëw teew bokk ci société civile comme ay ñoom Guy Marius Sagna ay ñoom Thiat dinañ leen accorder ay interview ngeen waxtaan ak ñoom mais c'était juste pour xamal leen ni kontaan nañu seen taxawaay kontaan nañu ci ni ngeen ñu jàppale ci xeex bi et maa ngi leen di wax itam ni man depuis ci bëccëg ba léegi dama opposé wu ci Bougane ñu bokk si ci manifestation bi et j'assume mes responsabilités parce que li tax mu opposé wu ci bokk ci manifestation bi parce que dañu doon wax ni dafa laal politique te ñi teew fii laalewuñu politique kon ñi fi nekk li ñu bëgg mooy ñu garder fi ñuy liggéeyee ñi fi nekk li ñu bëgg mooy ñu yamale ñi fi nekk li ñu bëgg mooy ñu ŋàbb dëkk bi ŋàbbin wu baax ñi fi nekk ñëpp dëgg moo leen fi indi ñu rafetlu seen teewaay kon ñun ci suñu xalaat bu gàtt dañuy opposé wu képp ku yëngat ci wàllu politique nga bokk ci manifestation boobu comme njort nañu ni xëy na dossier bii politique laal na ci ñu demandé ci kii moom kër gi Bougane Gueye Dany mu bañ a bokk ci manifestation bi ma ne ko lépp loo mën a wax Simon Faye rédacteur en chef mu ngi fi Birahim Touré mu ngi fi Evelyne Mandiou Ba mu ngi fi ñoom Ndeye Dibe ñu ngi fi kilifa yëpp ñoo ngi fi kon ñun mën nañoo taxaw wax li nga xam ni moom la ñuy wax ak gan yi nga xam ñoom ñoo teew si woon loolu moo taxoon ma yëkkati benn kàddu jëmale ko ci ñi fi teew ñëpp mënuma leen lim mais ñoo ngi leen di sant bu baax gis nañu taxawaay bi gis nañu jàppale gi taskatu xibaar yi seen taxawaay am na solo dès le début lépp loo xam ni xew ne fi yéen a ngi ci jàpp kontaan nañu bu baax li ma leen di dénkaat mooy ngeen gën a sóobu ci xeex bi parce que dafay dafay soog a commencé bu ko defee Guy Marius caat yéen a ngoog ak seen njaboot kontaan nañu seen taxawaay rafetlu nañu ci seen taxawaay vraiment yàlla dong moo am seen fay te yëg nañu ni yéen xam ngeen ne ñun seen ay partenaires lañu xam nañu ni bu ngeen ñu woowee ñu bokk ak yéen liggéey bi xam ngeen ni ñun suñu seen ay partenaires lañu xam ngeen ni ñun seen ay frères lañu xam nañu ni ñoo bokk tey benn objectif bi ñuy xeex xam nañu ni nekk te kon ñu ci la fait ñu doon bàyyi xel toujours ci seen ay activité seen ay kàddu di am valeur ci ñun vraiment juumuñu ñu ngi leen sant encore une fois donc ñu bàyyi leen kon ak euh, kilifa yi société civile yi kenn ku mu ci doon am na déclaration bu muy def jëmale ko ci li sabab euh, toogaadu ñaxtu bi ñu amal tey fii ci buntu Groupe des Médias